ñëw ci seen émission bu mag bii di Intellect ñu ngi leen joxoon rendez-vous 16h mais euh, ak jafe-jafe yi ñuy faral di am yenn saay ci côté technique dinañuy faral di décaler décaler heure bi donc ñu am mbégte euh, jàkkaarlook suñu jigéen koo xam ne Sénégal yëpp xam nañu ko muy euh, soxna Fatoumata Fouta Tampi Euh, moom la ñu war a jàkkaar lool def ak moom émission bu am solo mais sans plus tarder dañu koy dalal jàmm ci këram fii ci Feeling Dakar TV euh, soxna Fatou ñu ngi lay euh, dalal jàmm di la ziar la bàyyi nga nuyoog ñi lay suivre à travers Feeling Dakar. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taalaa wa barakaatu ba ñu sante yàlla jub ci sang-sang di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sunuy waajur di sant suñ Babacar bi nga xam ne mooy suñu la teg ëllëg di sant tamit ki nga xam ne mooy cenn Cheikh Bachir Tall afa baa moom toxara maa moom di ko sant bu baax di ko gërëm te naa koon jërëjëf ñu ngi gis taxawaayam ak tamit moo ñu teree ragal moo ñu teree tiit waaye bu ñu fu nag boo gisee rekk doo doolay jën ndox doolay saxaar raay mm-hmm. tey su ma amee doole ak kàttan ak mën-mën ba yàlla may ma toog fii c'est grâce à mouvement Fouta Tampi ensemble sauvons le Fouta. man leen jërë ngeen jëf aw ma seen fay yàlla mi am fay yàlla na ma leen yàlla fayal. Mhm. nuyu sénégalais yëpp nag te naan maa ngi fas yéene ñëw ñu waxtaan. Mhm. te ñu xam ne lu fi baax rek sunu borom la jógee. Mhm. waaye lu fi baaxul rek nañ xam ne nit amatul amaana bëgg a defar mooy tax parfois nga wax loo war ta wax. ñu ciy jéggalu nag luñ fi mënta wax too xam ne rek safaan la wala am noo xam ne neexul leen. ma lay bu baax Aliou Bari di nuyu tamit ah Bamba. Ah, ma koy nuyu bu a liggéeyee mm. di Ndeye Guèye boobu bu ma duggee ba fii nuyuwuma ko kon du ma gor kon Ndeye Guèye tamit maa ngi koy nuyu ko ziar séeri Papa Jinne mm-hmm. <laughs> macha allah kooku mooy Fatoumata borom Fouta Tampi ñu war a seq ak moom jotaay wax ci lu bare bari ci actualité ci politique bi euh, ba ci éducation bi fépp mais euh, Fatoumata man moom sama fans nga woon mm-hmm. bi nga nekkee Fouta Tampi nag laa wax mm-hmm. daan daan xeexal Fouta parce que man Fouta laa bokk kuy défendre Fouta da nekk sama fans waaye dama jékki-jékki daal gis Fatoumata mel ni léegi Fouta Weli lay wax mais waxtul Fouta Tamp yaa ngi Fouta Tamp ba léegi. Mm. waaw Alioune Badara Fatoumata defe naa ba muy jóg di xeex. di mm. xuus si àll bi dëgg. maa xuus sa kenn jàllewu ma ma dajee ki gaynde dajee ki bukki mu metti lool. may am gudd yu ma dul nelaw di jigéen. Mm. sama njaboot nekk ñox man may dégg lu ne dem ba ràlliye ji tuubaa nekk fa. di daw fu ne. boobu faatumata kenn fekk ko ci woon kannaaw yàlla yonante bi te man dara ñor mu lu fuuta man sama famille yëpp a ngi fuuta sama waajur bu góor ñu ngi ko denc si sëti fuuta sama famille sama kër papa mu nga fuuta sama kër yaay mu sama sama lépp a ngi fuuta man maa sama rakk bu góor rek a fi nekk mm. kon man lu mu am tey fuuta la waaye man dama foog ne Alioune Badara ñun dañoo jóg ne fuuta tàmpi mm-hmm. keneen mën naa jóg ne fii tàmpi wala fëre tàmpi te defe naa ne nañ doon xeexalee Fouta. Mm-hmm. tey xaaral nañ yoon yoon boo xamante ne Fouta tey ku mënti taxaw président bu mënti ñëw mën nañoo revendiquer seen i droit te defe naa ne tey ñun marqué nañ suñu empreinte. Mm-hmm. te lu ñu amit Fouta ñu ko gënal mu newuñu Fouta weli waaye dama fekk na tey booy xeex mbir. ba ñu dem mbir moom ñu la koy defar nga ciy teg sa bët waa Alioune Badara boo taxawee bu ma taxawee di la ŋàññ naan li ngay def baaxul li ngay def baaxul boo defee lu baaxul am waruma am sanction ñu taxaw ne la jaajëf li nga def baax na ñu ne ma lu tax nga wax ko waroo koo wax da ngaa war a chaque jour di ko ngaañ mais déedéet ñun du ñu ay président Macky ñun si biir APR lañ bokk mais teewul ay fuutanke lañ di nga dégg ancien député di nga dégg ancien ministre di nga dégg ancien président mais jamais ancien fuutanke ñun Fuuta la ñuy xeexal léegi bu ñuy xeexal Fuuta président di def waruñoo mën a génne ne ko jaajëf li ngay def rafet dama lay laaj rek président mu ngi def nii nii. waaw. Sall Ngaari de Fouta ñu ngi ñu ngi ñu ngi kii ba léegi. ñu ngi lan coono gi ñu nekkoon. waaye gis nga coono président mun tabatal fépp waaye mu ngi ñuy mosal ñu ngi xaaraan rek leneen mu dolliwaat. mais yéen euh, gis nga Abdou Aliou Mbadara. Mhm. ñun suñu dëkk daane maayo suñuy maamaati maam nee nga futanke na suñuy maamaati maam ba ñun suñu génération bii mas ñoo am sax luy luy buntu lii bu xonq tali bu xonq waxtuma kaa ko doro dama lay laaj rek. donte yaay posé question dama lay laaj ndax mas koo am. léegi léegi na fa. déedéet waxuma la dama ne ndax mas nañ koo am. waaw man yàlla nag Fatoumata man moom maa lay posé tey. ah waaye nag xam nga fi muy neexee ñu koy jokkoo maa ma laaj war nga maa a ah, lay laaj parfois a laaj nga may laaj dama cee ba tey nangu naa te mu ngi ne di ñu ko doroneel. ah mu ngi fi may wax ak yow nii toll nañ cempe romb nañ nawet romb nañ garri toll nañ cempe te dañuy dem. loolu rek la Fouta soxla goudron rek. déedéet. Ah. loolu man ma waxuma la loolu ah kon nag hôpital Ourossogui bi 1977 lañ ko inauguré woon ba ñu jógee wax président mu ngi koy tabax defar ñu niveau 2 hôpitalu niveau 2 sunu doom yi ñu doon wax université. Mm-hmm. nee na waaw da koy def. ok waa léegi ñun bu ñuy xeex dara mu ñuy defaral nañ wante dëgg ñun lu ñu xamoon du lampe pétrole. foo gisati lampe pétrole. foo lu ñu xamoon du ay teen foo gisati ay teen bareeti na mais nañ wax waxante dëgg nag ñu ngi xeex mu ngi def dañuy taxaw ne ko yaa ngi def teewul nag dañuy gën a làbbali pour mu gën a mën a def lii des. waaye mais nag waruñoo taxaw rek ne ñun dañoo war a wax président non non nous sommes pas des opposants non non non nous sommes des revendicateurs yoo xam ne dañuy revendiquer pour les euh, les droits de Fouta mais nous sommes des opposants ou opposantes ok loolu moom euh, leer na Fatoumata du opposante bu état bu Sénégal mais dafay revendiquer ay droits am pour mën cee jot. <laughs> bienvenue dal leen ak jàmm ci docteur Abdoulaye Diallo le médecin le plus professionnel ma ne la ki mooy Abdoulaye Diallo le mythe de sa génération ki nga xam ne moo mën lool ci saafara jàngoro yu ci mel ni colopathie hémorroïde cystite impuissance sexuelle diabète hépatite B arthrose polyarthrite rhumatoïde nerf sciatique hernie discale ak hernie inguinale ulcère fibrome kyste ba ci stérilité lépp ci jaaxal seet si docteur Abdoulaye Diallo yow mi amee rab def def nekk ci yow cat daf la sonal da bëgg a ubbiku bëgg am alal ju gaaw te jaar ci yoon seet sil docteur Abdoulaye Diallo mu nga ca Petit Mbao dana disponible li ko dalee samdi dimanche lundi bu dee Touba nag mardi après midi bi woo ko gaaw ci 77 203 08 04 wala nga def 77 959 28 09 docteur Abdoulaye Diallo mani la phénomène baa ngi nii ci wàllu santé lu la jaaxal ci say tawat dawal seeti ji